الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dengan dulu dengan ziarah dan berkaki bertakwi di ki nuyomi ki nga xamne mo fi moy kilifa jotaay bu teewal fi kilifa gërëm bi mu cheikh mohammed abdullah fi teewal cheikh mohammed muntaka hafizahullah wa ra'a di nuyu wala mboolem kilifa fi teew ak bokki ak bokki yi di ñaanal ki fi toogee jataayu sëriñ bu mag bi mu Cheikh Sëriñ Muxtaar yàlla ya ko yàgg ya, ak suñu kanam te doli ko yir ya, kattan dëgëral ko ba li mu yéene lépp ci liggéeyal yoon wi ak sëriñ di mu def ci lu koy njortam te lépp ñu ànd ko moom di ñaanal doonu gi tedd ji nga xam ne moo féete ci béréb bii te taxawaayam ci xam-xam taxawaayam rek ci yoon wi ci anam gu matale rawatina ci wàllu xam-xam ak ñemeloo bi ci yëngu ak soññ leen eh, kenn wérantewu ko te mel ne loolu it jabootu boppam gi nga xam ne ñoo sës ci moom di eh, roy ñu ngi taxawe taxaw bu bu mëngoog boobu loolu moo waral eh, académie bu minal baax qadim di loolu islamiyya juddu suñu kilifa yi yor ya, ko di ko doxal eh, eh, eh, di ci dundal ndonal xam-xamu yoon wi di ca roy tànki borom béréb bii Cheikh Mouhamadou Bachir radiallahu anhu kon boobu taxawaay méngoo naag doxiinu kilifa gi nga xam ne mooy njiitul bi ñu ngi am mbégte kon bu baax ci ci di ci yëma barkeelam ni ko sëñ Abou waxee birum khasida fi mu yegg laaj na taxaw seetlu euh, ak jël ci ay euh, matuwaay ndax mu doon loo xam ne day doon jariñu kese kese kese te ay gàllankoor mag bañ caa juddoo li ñu war di ko bàyyi xel mooy ñu xam ne lii mag ñu baax di daan wax naan la defaroon xeet bi ci njalbeen moo koy defar ci mujjam yoon ba mag ñi jaaroon sëriñ bi jaarale leen ca ba ñu yegg fa ñu yeggoon mel nañ mel am lañ amoon yoon woowa rek mooy yoon woowa kon ñun jine bàyyi xel ci ne li wax ittibaa ittiba mooy top rek top dox dox yi ñu fekkoon te bañ a sos dara lu yees ya. moo nuy jëriñ sëriñ bi dafa wax ne banaytu taati bi ittibaai zikri wa sunnati wal ijmaai nee mbiram ñu ko teg ci topp topp sosul dara lu yees ya. lu alquran ba sunna mbaa li jullit yëpp borom xam-xam jullit yëpp ànd ci ne nii la wutewut ak ñoom ci dara mu digaloon ñu ne nañuy sax ci topp sunna te moytan ko topp bidaa wa jitanibu ahwaa nafsin wa ibtidaa wastaxilu fi kulli xiin bi tibaax is jumia alxayru fi litibaaxi wa jumia alcharru fi libtidaa nena yang merta ku top bane hibakan atau ay mbir yu bees sos ci diine di ko ca askan da ngeen def seen yitte jëpp rek ci topp ci yoon bu ngeen fekkoon ñeneen ci jiitu woon te jub nekkoon ca ndax lu baax ba xamuñu ko woon loola ba lepp lu ci safan nak mi ngi ci jiyoog ñoom kon lu bàyyi xel ci ne ci taalibe gi talibé gi nañ ko tek rek ci roy mag yi lepp lo xamne wuté na ak doxiinu mag ña ñu xam ne loola mënta doon mu mënta doon muy jariñ ndax mu ñu ñoo dab mag ñi ci pësteef waxuma laa dina ci raw kon euh, loolu ñu jëk ci bàyyi xel waxtan bi ñuy bëgg waxtan na ko seq ak eh, suñu sëriñ sëriñ Xalil Mbàkke mi nga xamné dundu nako na ko eh, bind ko di ci góorgóorlu baax itam ñu rafetlu di am mbégte it ci fekkoo mom ci gogu wet waxtan woowu defal nañ ko rek bu yagul bu wax rek eh, barki dem rek defal nañ ko fecc ci jumaa mag yi euh jëkkon na ko rek ci yeneen yi barab rawatina fële ca Daaru Karim pour sëñ Masamba euh, waa Daaru Muxti defal na ko ñoom it ci njàlbeelu koor gi eh, kon da ci am loo xam ne rek ci ci tomb yi ci nañ ko daa waxee mën nañ koo mën nañ caa gàttal li ngir euh, bàyyee sëñ bi mu wax ci fànn yi demee noonu ko defee ñu wax li ci li gën a jëm ci ni thème bi tudd muy kayfa nataamalu maa qasaa'id Cheikh al Xadim radiyallahu anhu euh, kon li jëm ci li ñuy tàmbale rek moo ñu xam ne ni ko sëñ Abo waxee qasaa'id Cheikh al Xadim mooy tax qasaa'id ci sëriñ bu bi dafa dugg ci biir mbindam ñu bàyyi xel ci ne mbindum sëriñ bi bopp la bu ñu dul jëmm la ju kenn dul séddale li bind jëmm la joo xam ne kenn du ko séddale jël ca dara bàyyi la ca des ndax loola ku ko def dañuy ragal nga bokk ci ñi yàlla wax naan afatuminuuna bi ba'dil kitaabi wa takfuruuna bi ba'd te loolu la cay topp kenn ñaan ko yalla moy ñu wax ne ndax banu israël day wax ne len ndax da ngeen di gëm ci alquran la len ca la ci deppok sen bakkar ak sen banex ngeen gëm ko japp ko ne lo lay deug nang ko la nga xamne nak wuté nak sen banex bànneex ak seeni bëgg-bëgg moom ngeen tek ko ne way xal ko wéddi ko wax ne lo ku ko def dara doon ak pay may gàcceeg àdduna te bu yomal xiyaamee ñu teg ko mbugal mu gën a diis yàlla na yàlla mosal ca loola lii di sëriñ bi wax ci mbind mi la koy delloo li ci ab baatu mbind lay firi lay bind ak i taalif lay ki nga xam bind lépp ca la wax jay jëm tuwasilu aqlaami ilallahi aabidan bila xalwatin wallahu aqaak maana aqlaami la wax aqlaam yi ñëpp xam ngeen ko ay jumtukaay la waaye lam ca jublu mooy la jumtukaay bay kon mooy mbind ma la wax foofu yaqulu xattiyal murid mu saxtan kulla marid la sanwan xat xatti la wax wa bi kitaabatiya rabbi rabbi kulla mutaaxin wa ci rabbi wa la wax kon mbind mbindam lay wax moo ëpp li ñuy qasaidi wala qasidati li khatti wala tawalihi wala aqlami wala kitabati lolo ëpp lu muy wax kon nañ japp ne bindu mepp lañ war di jël qasida bok ci biir am fuñ ci fété ab jaaro bu bok ci biir ak bu gudd xam mëno dagg jaaro bi bàyyi lees ca càll ga ne see nekku ci maanaam euh, dafa dugg ci biir ab système bu matale boo xam mënoon a coqe moom xes na nga jël ko rek moom kenn ne moom laa féetewoo li ma bëgg lépp ci laa koy amee euh, lam war a àndal samay néew ci loolu mënta mënta nekk li koy firndeel mooy li sëriñ bi wax ne hadayta bi aqdi wa tasawufi wal fiqhi ayaali bi zikri ma salaati wa bil madhi nga xam ne mboolem li bind fànn yi bind yépp euh, tënk na ko ci biir bayit yi mooy xaaj bi jëm ci jàngal nit ki diineem mooy téere yi mu bind taarif bi jëm ci tawxiid yi taarif jëm ci fiq ak yi taarif jëm ci tasawuf ak ay dënkaan nga xam loolu la jàngal nit ki diine ak li bind mu jëm ci digganteem ak boroomam mooy zikr ak sukkur ak yi ak lim lim bi jëm ci diggante bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy ay amdaax ay tagg ak ay julli kon ñetti xeeti mbind yépp waaye ci bind ci bay li wax ne hadayta hadayta la wax ayaali kon mënoo jël xaaju bayit wa mooy daaneel wa rek bi zikri ma salaati wa bi te loolu lañ baaxoo tudde xasida dana loolu rek laay jàpp xaaj bu njëkk ci bay bi muy hadayte bi àq yi war tasawoo fiqi sama yoon nekku ci kon nga njëkk a bàyyi xel euh, euh, euh, loolu bu ko defee mbindum sëriñ bi kon am solo lool benn am gi solo daan jox ay tomb waaye bi yoon benn rek ci doy lool mooy am gi solo bokk na ci li koy firndeel mooy ne mooy li ñu dese ci li gën a wér ci li ñu mën a xamee njàngaleem sëriñ bu mag bi bi dafa jàngale yoonu ñetti yoon yoonu murit da ko jàngale ñetti yoon da ko jàngale ci ay waxam loola ñam bokkal jamono ñu daal dégg ay waxam ci kàddoom ñoo ko moom mu jàngale ko ci jëf mooy yar ay nit defar leen ba ñu dëppoog am njàng leen mu def leen ay royukaay yabal leen ci réew ci réew yi e, ñuy def nit ñi ba ñu dëppoog melokaan yooyee loolu mooy jàngale na ko ci jëf xam ne ku gis ku sëriñ bi yar mbaa nga gis ku mu jur man ngaa jànge ci moom yoonu murit man ngaa bañ a xam dara tey xool kooku rek la muy def ak wax ak nam mel jàngale na ko nag ci mbind mooy lii mu bind lépp bàyyi ko fi euh, mu di taalif loolu moo dëppoog lam daa wax dëppoog la mu jëf euh, moo tax mu daan wax naan layoon maa ngeen fii ci àddina njëkkës fañ jëm wax naa ngeen dégg jëf naa ngeen gis bind naa bàyyi fi kon lu gën a wér bindam turi mën a sukkandikoo ci njàngaleem man xaw ma ko moo taxoon waxoon ne in lam tulaaqi muslihan fal taktafi bima bihi nassa xiyaaru salafi fa huwa shariatu nabiyi mustafa صلى مسلما عليه زلفا ولا تكن مفرطا او مفرطا بل استقم في سنه واقسطا واخبروا بان الاستقامه نهايه الصلاح والكرامه بنكو بغي جيجل داني واخ رك نه دا واخ نه su ma gisul su ma fekk koo xam ñoo nga fekkoo ma ci jamono yamal ci lima bind li ma bind laa de waxuma jàppal ci xasida yi waaye yamal ci lima bind yamal ci lima ma bind te bul ëpp bul yees nel nel nel noj nel noj ca yoon wa bul jàdd eh, kon loolu day war a ne ci leer mooy sukkandikaay bi gën a wér ci jàngale yoonu ja ci xam yoonu murit ndax xam nañ ne euh, murit gi maanaam murit yi ak murit yi du benn waaqixul muridiin ak al muridiyatu ñaar lañ murit yi dund ak la yoon sëñ yoon wa sëñ ba rëddoon ne mooy yoon yi dëgg-dëgg euh, du benn man nañuy dëppoo ci ay ak ay ay ay waaye léeg-léeg ñu wutale wet li nga xam ne jëmmi lislaam ak ni julli ak jullit yi ak dundub jullit yi ca benn boo àttee woon lislaam ci ni jullit yi mel mën ngaa juum waaye ko àttee woon tam jàngaleem sëñ bi ci melokaanu murid yi yëpp yëpp murid boo tasee lu mel da nga ne lii mooy yoon murid mën ngaa juum kon loolu tax mbind mi moo fiy des kon nekk delluwaay bi nga xam ne buñ bëggee xam lu ci bokk ak lu ci bokkut ca la nii mën a dellu waaw kon nattukaay bi mën loo xam mooy corriger di jubbanti di xam lu bokk ak lu bokkut ndax bu dul loolu rek bu dul loolu rek fekkee amul balance bu ñuy peesee euh, lu ne rek mën naa ñëw ñu ne ci la bokk te kenn du xam ca la bokkum déet kon loolu tax mbind mi nekk lu am solo su ko defee màggaayu xasida yi ak seeni njariñ wax nañ ko wax a wax wax ba xam bu ko nit ñi xam moo tax nit ñi ko dëgg dëgmale ñu dëgmale ko noonu kon loolu wax ko daanaka waxit la euh, kon nañ jublu rek dëgg-dëgg ci ni war a jëflanteeg xasaay bi xasaay bi kon ñu xam ne ne mooy xaaj bi bokk ci mbindum sëriñ bi te sëriñ bi di ci wax ak boroomam baa mu ci wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sëriñ bi mbindam mi ñett la ciy waxal yàlla sunu boroom yonent bi sallallahu ak boroom jullit mi ñett ñoo ñu lay waxal ci mbind mi xaaj bi nga xam ne yàlla la cay waxal ak xaaj bi muy waxal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaari xaaj yooyu lay jutulee xasaay yi kon ci waxtaan bi xaaj bi jëm ci nga xam ne nit ñi la ci wax mbooloom jullit ñi kon xaaj boobu bokkul ci li ñu baaxoo tuddee xasaayid yi bu ko defee mbindum sëriñ bi wala xasaayid yi sëriñ bi da ko séddale ci ñetti jamono lam bindoon la jiitu mu dem ci géej gi tàmbale ko ci moom tàmbalee bind te ku teel a tàmbalee borom béréb bii wax na ne xasiid ak sindi di sëñ bind ci ñaar fukki atam te am na lu bind lu ko jiitu kon teel naa tàmbalee bind kon ba mu tàmbalee bind rek ba ci atum junni ak ñett téeméer fukk ak ñaar ah ma bay sosin diggante boobu yépp ab xaaj la ko jàppe mooy la jiitu yoonu géej Euh, ak lim bindaat nga xam masoon naa wax ne loolu na nga weesu ko waaye ni ñu xamee ni ko xamee ni man ak mansuux amee ci alquran amee ko ci xadis noonu la amee ci waxi sëriñ bi sëriñ bi fi mu toll tey lay waxee waaye bu fa weesoo mën naa waxee neneen ndax fa mu toll rek waxee moo tax la mu masoon na wax ne nangu weesu ko mujj na wax ne nangu nañ ko kon lépp bokku àtte la jëkk ak la ci digg ak la mujj lépp a yam lépp la ñu nangu nangu boo xam ne kawe na jot lépp la yéegal ci arsh ak kursi mu di fa wëndeelu xabilta li min asashin di bal sasi munabbihan fi zaaka amal asasi xaaju ñaari mooy lim bind tàmbale ko ci ama jay sasin ba ci ama jag sasin muy jur fukki at junne ñetteelu fukk ko ñett ba junne ñetteelu ñaar fukk ko ñett ci boobu li fi bind nee na yàlla rek ak yonentam ñoo ko moom yoonu keneen nekku ca lillaahi maa katabtuhu min jaysasi wa li rasulihi li xatmi jagsasi nee na loolu wéetal yàlla la ci doon def ak di ko ci tudd ak di ko ci sant kon loolu ci yàlla la jëm ak doon ci liggéey yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci julli ci moom ak di ko tàgg loola julli yi war nañ cee mën a jariñu waaye daf caa fiir amit lu ca lambu lu tax mu wax ne nañ ko ko fi tegal ak nee na tam loo xam ne da ci doon da ko bind ngir jihaar ak tubaab yi noonu lu yóbboon jihaar day bind bind yoo xam ne ci doon jihaar ñoom ci diir boobu mooy fi muy wax naan jaahatu bil xatti euh, siniina wahdi man lam yakun muwahidan za jahdi xeex na maag ñiy bokkaale ak yàlla ay ati at man dong ci sama xalima kon daana bind bind yoo xam ne jihaar la lu muy def ak tubaab yi jaahatu bil xatti adu wallahi ansata awamin bi zikrillahi من عام جيششي لعام دكسسي وقبل جميعا عام هكسسي لو أنني لم أترك الكتابة مجاهدا بها ذوي العتابة لمات برباء كل كافر إن لم يتوبوا للإله الغافر لكن عفوت عن جميع الناس لوجه رب مهلك خناس والآن قد صرت خطي إلى تجديد دين الله وأهب الإله nee am naa fukki at yoo xam ne maa ngi bind di jixaar ak tubaab yi xeeti mbind yoo xam ne dafa mel ni ay kanu ak i fetal ak bépp ngànnaay buy lore boo xam daa koy jëmale ci kanam ci noon yi ba ñu nooy ba àgg foo xam ne su ma téyewutoon sama xalima ci xeeti mbind yooyu ñoom ñépp ay faatu ba jeex takk te bëggewuma ko noonu ndax not leen ba dootuñu ma gàllankoor rek laa namm waaye nag jële ci seen bakkan loolu taxumaa jóg moo tax ma baal leen ma baal leen bañ dee faatu ma bàyyi xeeti mbind yooya dégg nga euh, wëlbatiku nag di bind loo xam day jëm ci yeesal diine kon xaaj boobu nga xam mooy li bind ci du fukki at yooyu dafa waxoon ne dama ko denc di tere ku ko sotti wa lizalika satartuhu wa manaatu min naqli maa dama ko denc di tere ku ko tasaare li am di kaw niha asraran ilahiyatan dafa nekk ndax xam lam yajuz ibrazuha di kaw niha asrar ilahiya tasaare ko dëgganul ndax dafa làmboo ay mbóoti yàlla yu xóota xóot kon xaaj boobu loo ci xam ne jukkiwaatu ko joxeel ko boppam mbaa mu yeesalaat ko taalifaat ko ginnaaw bi mu ñibbisee loolu ab xaaj boo xam ne loxo waru koo laal xaaju ñetteel bi mooy lim bind ginnaaw dak ba ni mu ñibbisee Tuuba euh, junne ñetteel ñaar fukk ñeent loolu wax naan minniya lillahi wa lirrasuli wa wal qabuli min dak sachin ila duxulil janna xatti bila azan wa xayri fitna mu ne li ko tàmbalee ci atum junne ñetteel ñaar fukk ñeent ba ni ma tàbbee aljanna ñibbisi Tuuba diggante boobu yëpp li ma fi bind euh, yàlla dama ko bind am na ngir yàlla yàlla laa ko bindal ak yonent bi ak mbooloom jullit mi kon ñépp ci mën a jariñu te kenn du ci loro bi daa azan waxee ni fitna kon noonu la ko euh, séddalee euh, kon loolu itam ñu bàyyi ci xel su ko defee kon xasiida ni ñu ko xamee dafa bokk ci liy yeggale nit ki ci yàlla ni ko sëñ aboo waxee euh, tuwasilu aqlaami ilallaahi aabidan bila xalwate wallahu abqaakama ana sama sama samay mbind day yeggale ci yàlla jàngkatu yàlla ci te du jaar ci moom muy duggi xalwatu ngir bëgg lu gën a gaaw ginnaaw da bokk nag ci liy yeggale ci ci yàlla kon loolu am na solo lool lool lool day taxaw taxaw sëriñ bi di def di def la nga xam ne moom la doon def xasida daa bokk ci biir mbind mi nga xam ne mooy def daf ca euh, kon loolu mën du luñ mën a ñàkk mënees koo ñàkk daa bokk ci biir yarut murit daa bokk ci biir yaru murit ak Cheikh Saleh radiallahu anhu mi nga xam bi mu ñëwee dafa yeesalaat yoonu tarbiya dëppale waa toog na ko sëriñ bi daal defe euh, anasir ya sëriñ bi daan bàyyi xel yépp mu indiwaat ko euh, tàmbale ko ci njàngum alquran njàngum xam-xam ak liggéey njàngum xasida euh, loolu lépp gis nga ko dafa delloo si at njàngum xasida dugal ko ci biir yar bi ndax ab xaaj la ci bu ci mënta ñàkk sëriñ bi ñam daan yar daana leen sakal waxtu woo xam bu jotee mu dajalé len yëkëti ay fasida mu len di euh ñu ko jang ba waxtu ñu ko war a euh, mu def loolu leneen daana len digalit jox it ay ay digal ci ay jox ay fasida ñu ko jang kon dafa bok ci dunduk murid bu mënu ko jang ab murid da jang xasida mënta na ngeen di na alquran di julli tay jàng alquran tay jàng xasida te nangoo liggéey jàng julli dana tax ñu boole ci julli di te li tax ñu boole ci julli di jar mat naa def dee leen jàng alquran daa tax ñu boole ci ñoom yàlla luy tax ñu boole nit ci ñoom yàlla mat naa def dee leen jàng xasida ndax day tax ngeen bokk ci sama ñoñ luy boole nit ci sama ñoñ mat naa def na ngeen liggéey bu baax a baax a baax ndax liggéey mooy tax ngeen mën a def yii kon jàngum xasida jàng xasida dafa bokk dafa bokk ci dunduk murit ab taali bu nu ko ñàkk a def loolu moom kenn wérante ko su ko defee ngir ñu jariñ ci ba li nga xam ne moom la xasida war a def ci noonu mu def ko ci noonu njariñ yi ci bëgg a jot ñu jot ko ci am na ay tomb yu ñu bëgg yu ñu war a bàyyi xel ba ca jëkk mooy balaa nit kee def yitteem ci jàngi xasida di durusa ko yëkkati na njëkk dem jàngi ay farataam na jàngi xam-xam na jàngi alquran jàngi xam-xam ba noppi ci njàng door a jëmale yitteem ci durus ay xasida jàngal alquran kon waxuma sax mu jàngal alquran bu mu jàngal xasida de waaye na yitteem ëppee laa wax ci jàngal alquran ba ba mu koy mokkal bu dee ko ko war a mokkal wala jàng xam-xam ba géeju bu dee ku ko war a def wala ba ay ba xami farataam bu dee ko xam foofu la war a yem kon na njëkke loolu ndax loolu moo war a njëkk ndax sëriñ bi li muy wax ni ñuy jariñoo def ne xadeete bi àqli yi wa tasawufi wal fiqhi la wax door a wax bi zikri yi ma salaat yi ba muy laataa wax njàng lu jëm ci xasida yi daa ñu ko wax téere xam-xam yoo noppi kon nit ki njëkk jàng ay farataam jàng tawxiid awal wajibin al muridi taksi zadihi min eh, ah, tauhid ne jangi mawahul kudus tasawud sigar tasawud syubban al khidmat musar agi agi aji ca tauhid yépp jang fiq ay faratam téré yi ma waxon jawal mi segi dama jangi tasawuf ba am ca eh, ay eh, suka kaay ba yoon mi jaar ni ko ci jaar mu xam yi Euh, kon na jàng njëkk ba xàmmee ay farataam ndax kat awal waajib al muridi taxsil zaadi min tawxidi wa baado taxsilu ma yusaxihu bi furudul ayni fi ma sarraxu euh, doo daal di wax nag ne wa baado nag yasluku idaama rusul ala yaday mukammilin yaxfu rusul sallallahu wa sallam kon loolu mooy njëkk bala ngay jàngi xasida bala ngay def sa ci di jàng si foo toll jëkkale ëppale sa yitte ci jàng xam-xam ak alxuraan ba la nga ci war a am nga am ko ci soo noppee nga tënku ci ndigal yi tënku ci lislaam def say farata ak loo ci mën a boole ci lu ñu sopp bàyyi yi xaram ak loo ci mën a boole ci yu sib fexe ba di jëfandikoo lu dagan rek loo xam ne luy defar lay doon te bañ a yàq mooy al mubaax as saalix al kon li nga jàng nga tënku ci di ko jëfe te dë te dëppoog sunna wala yaqtadi abiru yu muttabi'i bi sunnati rasuli ahmad al amin man amaro bi taati rahmani wa hazaru min taati sheytaani kon boo defee noonu ba noppi nag nga xam ne nga say farata ak say sunna tënku nga ci su boobaa jëlal xasida ndax xasida jëm borom xasida ci boppam rek bi mu laataa jublu ci bind xasida loolu la jëkke woon moom ci boppam jaxaltu xidmatahu bi sha'r naafilati ba'da al adaa'i li ma aw jabtay allah mu ne ginnaaw bi ma defee samay farata samay nawaafil mooy li may sasoo ci sama coobare ngir sàkk ci ngërëmul yàlla ba liggéeyal yonent bi ko def muy bind xasida kon baax na day la wax maa aw jota te kenn mënu ko ëpp pëstef ci diggante ma yonent bi kon suñu pëstef ci moom it mënta mënta romb pëstefam ci yonent bi kon loolu mooy yoon bu ko defee bu ñu ñëwee nag ci xasida ñu bàyyi ci xel ay mbir bi ci jëkk mooy nañ jàng ci xasida yi sëriñ bi jàngulu te yam lu wut ñu tégal ko ko fa limu mu bind ci diru fukkat yi mu wax ñu bañ caa jàng waaw loolu dana laaj gëstu ba xam ne euh, yi euh, ci yan jamono la ko sëriñ bi talif am nak ay bok ki talibé ñu ci liggéey liggéey bu am solo ku ñu wax sëriñ Mouhamadou jang rahimahullahu wa jazahu khairan liggéeyal na sëñ Tuubaa liggéey bu rëy ci xasida yi àndoon koog Cheikh Abdou Lahad radiyallahu anhu dajale na xasida yu bari lool ci ay diiwaan yoo xam ne yépp ci xaaj bu mujj bi la bokk ama liñ bind ci daksasin ba ci ñibbisi Tuubaa def ci genn xasida bu bokkul ci xaaj boobu euh, dafa meloon ni ko gisoon waaw la sëriñ boo xam ne xasida yam bindoon la jëkk bi dem ci géej gi nanguwuñ ko yi ci digg bi bu ko kenn jàng ba mu jàppoon ne kon yu mujj rek lañ war a jàng waaye euh, ñu xam ne itam ne ñu boole ci xam ne la jëkk géej gi it moom li ko mujj ñoo bokk àtte ndax xabiltal yi min assosin li balsa si mun a beexam fi zaaka ama la sasi kon ku mënta xam ne sa bopp xas yi bokk fee ya bokk fee euh, diwaan yooyu mu xam moom dajale na ko te te di ca xam yam yam ca def yëpp wóor ko ne yii ci jamono mujj bi la bokk lorong moom ku jël rek dana la mën a kon na jàng kon ci li sëriñ bi jàngulu te moytu lim jàngulu wut muy bukan bu ko defee bu dee bay itam eh, na sàmmoonteeg ay mbir ci bir jang mi moy eh, na jang limi jang na nekk na bu wér nyari sellal mooy nay jàng lu dëppoog na ko borom bindee bañ a yàq xasida yi dañ ko yàq ñu ngi wax ne euh, sëñ Saal daanaka fi ñu koy yàqee de su fa yàqoo waaye loolu firiwul ne du yàq la euh, foo xam ne boo koy yàq doo fa yàqoo kon xam nga ne boo ko dee defar waxaale wuñ ko waaye ci jublu rek mooy fu ñu koy na bi ci xasida di ko jéem xam jaar nga ci yoonu defar te dootoo euh, kon góorgóorlu rek ba fexe ba doo ko dootoo doo ko doo ko yàq ndax yàq ko boo ko xasee def wax nga yaa ngi wax jeneen wax ju bokkut ak jëm waxoon saa soo waxee soo maasee fu maasutoon nga dindiw araf mbaa nga yokk yow léegi sa waxi bopp nga wax waaye waxatoo ay waxam moom te ci ay waxam la ñuy jariñoo waaye say wax moom say waxee yow kon yàq ci fexe ba njàng mi di wér wéru njàng mi nag am na lu ciy dimbalee mooy ñu fexe ba xasida yi ñuy jàng mbind ma wér ndax ki nga xam ne moom jàngul naxwu euh, lim gis rek la mën a jàng nga xam ne bu feram ijee ijim rafetee moom lu mu tiim mën na koo jànge nañ ko bindee waaye nag mënta xàmmee euh, ki bindkat bu juum ak bu juumut mënu koo xàmmee euh, kon kooka day laaj ñu jox ko lu wér kon liggéey bu rëy war des koo def ci tasaaram xasida yi ci set yi ya ñuy génne ak yi ya ñu génne ak yi ya ñuy génne it ñu bind ko bind mu wér te topp ko ba mu dëppoo mu door a génn ba nga xam ne ku ca jot te jàngoo nax mënoo toppit eh, la ngay dajal nekk loo xam ne wér la ndax nit ki fekkee dafa boole ak mën a jàngam rafetul ak fereb jëm rafetul ba noppi lañ koy jox toppee ko yàq ya dana bari lool te loolu day wàññi eh, njariñul la nga xam ne moom ci war xam ngeen ne garab bi docteur bi defar sax def ca dosage boo ca raxee lu ca bokkul boo fabee élément yeneen yu bees dugal ko ci biir composition bi dootu la joxati la mu daan jox mooy kon bi ngay jàng xas ni boo ci dugalee lu ci bokkul yàq ko wëlbati wax wi maa nga dugal ci lu ci bokkul su boobaa euh, rax nga yëf yi kon njàng mi na wér te def dañ def ko it ngir yàlla sellal yaa ngi ko te jëm yàlla rek tax te sàmmonte it teg yii nii kuy jàng xasida ku jàng xasida mi ngi tudd yàlla kon war naa sàmmonte teg yii nii tudd yàlla wax damin adabi zikri zakiri julusu abdin fi makaani tahiri mustaqbila qiblati zata rabbi aw mutawarrikan kaman salla faxin tayyiba raihatin is la taxlu majalis zikri isa ma tajwa al malaika bi istimai wa mumil jinni al ijmai wax da ixlaas al fata bi tasfiya azkarihi min kulli shawbin fadri ki jàng xasida bu ko mënee njàngum xasida lu ko wutale waxtu ak biram da koy programme yi boo boo ko sa yi lay gën a ñor yitte yi lay gën a ñor ko waxtu boo koy defee boo dee liggéey am nga waxtu booy xëy di liggéey ak waxtu booy wàcc waaw nelaw am nga waxtu boo koy def jëfandiku am nga waxtu boo koy def kon xasida am nga waxtu boo ko waroon a jànge wutal ko waxtu woo xam bu jotee lépp loo doon def nga bàyyi ko wutal ko béréb ak waajtaay wa ca war def ko boo ca noppee eh, nga jublu ci leneen soo demee nag ba loola tële ba nga nar ko ñàkk jàng nga def ko ca na nga ko mane te fexe ba sàmmoonte orma kon loolu eh, dafa aju ci biir njàng mi mu am loo xam ne lu ñu war a bàyyi xel loo xam duggul ci biir njàng mi waaye phénomène la lu xew la lu mat a moytu loo xam ne jotewut ak njàngum xasida dara te bokkutal nag moom ñaari defee mooy ne njàngum xasida warut a tax nit ki bàyyi alquran warut a tax nit ki weddi alquran teg ko nële saboote ko sobental ko di ko ŋàññi jàpp ne alquran ak xasida ñaari wujj lañ yoo xam ne ciy féete kenn waaye mënoo leen a du ñuy wujj alquran wax yàlla xasida waxu waxi jaamu yàlla buy liggéey yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon dañ leen di boole waaye dee su leen wujjalee gis nga lu bon ku ci dugg da gën di jam rek gis nga nit ki bu demee ba wujjalee alxuraan xasida di leen di leen kii da ngay dem ba yàgg nga di leen di gënale boo leen dee gënale da euh, kii moo gën dégg nga euh, te kii def loolu mooy kii kii ki ne ci xasida yi féete moom day dem bu nekkoon alxuraan xasida gën loolu lay bu yàggee ca li mujj ne euh, xasida sëñ Tuubaa ko alxuraan yàlla ko kon léegi sëñ Tuubaa ma gënal yàlla gis foofu la ko yóbbu nga gis ne kon nit bu xasee bay jàdd moom da jàdd rek ca kaw lu jëm ni ko sëñ bi waxee ne lu baax lu bon dara mu ci cee ndax loo ci xeeb loo ci def lu mu néew néew daf la yóbbu ci nga def ca lu bari moo tax ngay gis ay nit ñuy dema dem ba euh, jàppe seen bopp ay noonu alxuraan bañ alquran bañ yàlla ñu wax di yàq lu mel ni xel ñu ko yàq yàlla di ko yàq alquran àgg ci bu ñuy jàng xasida baat bu alquran baat bu alquran suñu dikkee ci xasida ñu tëb baat boobu duñ ko jàng ñu seet loolu yow mi jàng alquran moom dañ dañ lay jàppe ngay koo xam ne moom daanaka doptaale lañ lay jàpp loolu bokkul ci li ñu xam li sëriñ bi wax mooy كل مريد بيلوز فليدين تلاوة لخير ذكر القرآن بيب طالب بخم نينا من لا يعكاب نسخ تجنج القرآن بس بسد نسخ تجنج نسخ تجنج القرآن أديم تلاوة لذات الكتاب ولو ثلاثة من أحزاتي كل يوم دون هجاء كما طلبة العلم له ذو انتماء وبعض من تصوفوا وزعموا بأن ما هم فيه منه أعظم وذلك الدليل زور وكذب qad garrahum iblisu fiihi faqtarib mu ne na nga saxoo jàng alxuraan bis bu set doonte ñetti isib la ko jàng boo dee ko wattu boo tuur ngay jàng la nga man bul bokk ci ñiy gàddaay alxuraan di ko woon ginnaaw bul bokk ci ñaari xeeti nit ñii bul bokk ci jàngkati xam-xam yi nga xam ne buñ xasee di jàng xam-xam dootuñ jàng alxuraan ndax dañu mel ni ñu ko tëlut bul bokk ci ñi nga xam ne ñu wooteeg daanu kate bay wax naan la nekk moo gën jàng alquran moo xam dañuy jàng seen wird bu sëriñ moo xam dañuy jàng seen xasaayit sëriñ moo xam dañ koy liggéeyal ñu wax ne lañ nekk daal moo gën a màgg bi jàng alquran kon ñoom dootuñu jàngatee alquran sëriñ bi nee loolu wax wax la ju wérut zuurun wax la ju wérut nee na ñooñi iblis leen nax war leen def ci seeni xel ay xalaat yu bon yu dëng yu jubadi ngir bëgg leen a Euh, dévier jàddloo xañ leen yoonu jàngal alxuraan ak sóob leen ci mbeddam kon loolu muy benn kon kii jàng xasida na xam ne alxuraan ak xasida du ñu ay wujju dañ leen di boole dangay ngay jàng alxuraan boo di ko jàng xasida mag ñu baax ñi loolu lañ daan def waaw euh, kon loolu muy benn benn ci ñu war a bàyyi xel li ci toppaat mooy jàng xasida du liggéey kenn du ko liggéey des ko liggéeyee nit dafa war di jaamu yàlla war di liggéey war di euh, def leneen ak leneen kon xasida dafa am waxtu jàng xasida daa bokk ci li nga war a def daa bokk ci li nga war a def waaye doonul li nga war a def lépp doon ne moom doon nga war a def mag ñee ñu gën a baax fuuf waaye dañ daan jaamu yàlla julli jotee dañuy julli woor jotee ñu woor joxe asaka jotee te ñu def ko aj màkka jotee ñu def ko lu lu ñu war a def lu ne ci xeeti jaamu yàlla mu jotee bi def ko dañ daan liggéey dañ liggéey bu baax di liggéeyal it yàlla di joxe addiya waaye dañ daan jàng itam xasida kon féete wu ñoon ci xasida ba duñ jaamu yàlla du ñu liggéey kon ne ci ne xasida yi laay damay liggéey sëñ bi ci xasida yi ba tax nga jàpp ne bokkoo ci ñi war a jaamu yàlla bu julli jotee doo julli bu euh, liggéey jotee doo liggéey da ngay dem ba bu fekkee daa nga liggéey nga xëy xëy bàyyi liggéey ba seetaan sa njaboot euh, di dund ci euh, rek kenn xamul loolu itam bokk na ci li war a bàyyi xel ci ne lu ñu war a moytu la ndax bokku teg doxiinu mag ña li ci toppaat mooy jànkat xasida bi na wato woro na wato woro ni ko nga xamne kep ku mën don rek sax na wato woro ki jang xam-xam na wato woro ki jang yàlla na wato woro ki jang xasida tam na wato waru ni ñëpp ni wattoo waru waru mooy nga dem ba li ngay jang ci xasida ak xeeti xasida ya ngay jang tax nga japp ne bokkoto ci nit ñi yaa gën ñëpp waratoo am kilifa kilifa waratoo ko am ndax kan japp ni sax moy kilifa nga ya ko ro fuuf fa nga ag ag fa la ngay xam xamu ko la ngay gis gisu ko dootoo am kilifa dootoo joxe addiya dootoo dem ca liggéeyu sëriñ ba dara dootoo ko defati génn nga sa bopp ci mbooloo murit yi te loolu waa bu fekkonte ne dañuy wax ne ku gisatul sëriñ bi jàppal ci xaside yi yam ci kon li taxaw lépp ci yoon wa du taxaw kon bi sëriñ ñibbisee Tuubaa rek la mbooloo mu muy tas ku nekk wuti say xasida rek beru ji di ñëw di ziyaara si jumaa du fi taxaw euh, dara benn naan lenn sotti kon du sotti waaye mbooloo mi dañoo nosu woon ginnaaw sëriñ bi dañoo nosu ñoom ñépp topp ci ginnaaw njabootam bi ñépp jaayante mu Mouhamadou Moustapha jàppe ko muy kilifa mu jiit ci liggéey bi Sëriñ euh, bi la ci jëkkoon di woon liggéey jumaa ji ñépp ànd ak moom dem ci àll ba di liggéey am ñak fa seen adi diko def bañ tabax juma ji ñu boole di jaamu yalla ak a liggéey ak japp nak ci parce que su fekkon ne rek ku gisul jëm sëñ bi ci xasse ngay japp loolu lay firi loolu doto am kilifa doto bok ci lenn lu mboro mi def kon batay tey yoon tas na bu yàgg-yàgg mbaa boog yoon ku nek rek kon saw yoon nga yor waye e, nos mom do fi amati te tasub nas mom nga xam setan dong la ak yàq kon loolu itam ñu ko xel eh, bu baax xam ne ñu jàng jàng xasida nañ jàppe suñu bopp rek ay nit ay taalibe yu sampal yu woo xam ne li war taalibe yépp war nañu ñu tënku te tënku wax ji daal ci wax mooy lépp loo xam mag ñi daawuñu ko def lépp lu mag ñi daawul def lépp loo xam daawuñu ko mel lépp loo xam daawuñu ko wax loola baaxut loola jubut loola du yoon ñoom ñoo xamoon yoon wa ñoom li sëriñ bi matoon mu jaar ca yoon wa boo fee jaar fala képp ku wute ñoom yaa war a seetal sa bopp waaye ñoom kenn du seen